muy mbooloo mu takku moo xam ne sëriñ Moustapha Mbacke di doomam moo leen dalal ànd ak sëriñ naa Mbacke ak docteur Khadim Silla gise bi nag jamaatu Ibadou Rahman fonk na ko lool ndax délégation bi mu indi toll nañu ci lu jege ñeent fukki nit di ñoo xam ne ñi jiite kuréel bi ci fànn yépp ba ci ñi nga xam ne ñoo jiite majlis shuhara bi majlisul hukama ñi nga xamante ni ñoo teewal ndaw yi lu bokkul ak coordination yu bari bàyyi ko Ndakaaru Thiès Njaareem ak Louga teewoon nañ ci Touba. ñu xam la ne seen tànk yi nag du dara lu dul tànki siyaare ak nemmiku ak luy dëgëral seen diggante ak Touba di rafetlu itam tànk ak jéego yi nga xam ne sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mi ngi koy dox ci lu benn la jullit yi ci wàllu jàmm ci lépp muy kàddu yi nga xamante ni Serigne Babou mi yoroon seen kàddu wax na ko ginnaaw bi itam amiru jamaatu bi di imaam Amadou Dia xamle na ni jéego yooyu sëriñ bi di def di jógal boppam di dem ci këru diine yi doon na loo xam ne lu sori la ci xolu jullit ñëpp mu dellu itam di ko santaat ci ndimbal yi nga xam ne dañul di ko def rawatina bi nga xamante ni lu takku ci ay jullit loru nañu ci mbënd mi mu def ci loxoom lu bokkul ak ñaanam di jëf ju takku joo xam ne am na njariñ lool ci kàddu yi nga xamante ni jël nañ ko fàttaliwaat nañu fi nga xamante ni jamaahatu ibaadu rahmaan fala jaar ak mboolem ñi fi toogal sëriñ tubaa li ko dare ci sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ba ci jataayu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke bii ginnaaw seen at yi nga xam ne jébbal nañ ko ko muy ay téere boolewaale nañ ci itam ab bataaxal boo xam ne dañ ci wane seen mbégte ci bi ñu gisee programme bi nga xamante ni tëral na ko ci fas yéene ko liggéeyal Serigne Touba te mu leer leerloon ko ci màggalu 2009. ginnaaw kàddu yooyu Serigne Cheikh Abi Mbacke moo jottali kàddu yi Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke di wone rek ne seen jéego yi itam Serigne bi rafetlu na ko lool fàttaliwaale itam liggéey boobu fu mu tege te lépp di ndigali sëriñ Touba ak i jëfinam ak i doxinam muy loo xam ne. Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke daf koo jëmmal ba kenn ku nekk mën cee teg bët ginnaaw bernde yu yaatu yi nga xamante ni Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke defal na ko délégation bi ci fa yi leen daraloon muy kër Serigne Touba yi am na beneen délégation bu bàyyeekoo ci rawdu Rayaahin daje fa ak ñoom Serigne Ahmadou Badawi mi nga xamante ni moo ko jiite Serigne Cheikh Aliou Mbacke moo ko teewaloon ànd ak Serigne Moustapha Diatara ak ñeneen ci waa mbooloo mi waxtaan fa. fàttalente fa li nga xamante ni lépp jëm na ci bennoog lislaam biñ fa bàyyi ko siyaar ji nañu sëriñ Cheikh Bassirou Mbacke ibnu sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ci këram foofu itam kàddu yi mel noonu rek moo fa jib ñu mujje nag ci daara isbu tarixe ji nga xamante ni biñ fa agsee sëriñ Atou Diagne mi jëwriñu daara ji moo leen dalal ak lu bari ci membre direction générale weccante nañ fa ay kàddu waxtaan fa bernde fa soog a jóg nag nemmiku yenn barab bi ak yenn liggéey yi nga xam ni ñu ngi koy amal ci daara ji lii lépp nag di wane ne sëriñ bi moom li mu waxoon jaboote na ñëpp xajoo na ñëpp ci lépp loo xam ne luy doole lislaam la ci bépp fànn